maintenant en tant que acteur politique ñeneen ñi nga xam ne samp nañ seen dënd Malick Gakou nga dégg ko dégg Bougane Gueye Abdourahmane Diouf Aminata Touré euh, ñooñu noonu ñëpp aujourd'hui yow ban jàngat nga ci am bon ah, bonne chance pour élection élection présidentielle kii dafa war a nekk lu yaatu multitude de candidats l'essentiel sénégalais ñooy décider mhm. man di travailler pour éliminer candidat baaxul man damay wax ne damay wax toujours dama ko yàgg a wax sama adversaire ci politique du sama noonu dem di ko caresser sax di ko tagg moo ma gënal ndax da nga jël ak njabootam. man politiciens yi bu ma leen gisee ñuy xuloo di xeex di def nangam di sànni non dama ni ñii xamuñ parce que mi ngi mel ni ñun c'est la vente pour convaincre le client d'autre il ne faut pas lui dire que so li nga jën ci waa ji baaxul lee ko baax na waaye man am naa lu ko gën man dama yaakaar ne loolu mooy politique loolu laa yaakaar ndax alxuraan sax loolu la wax wa jaadilhum billatii hiya ahsanu quand tu te débats tu débats ci waxin wu rafet moo tax ma ne politiciens yëpp dañoo war a xoolaat nan la ñuy doxalee en tout cas États-Unis da ngay gis noonu lay doxale France noonu lay doxale l'islam sax noonu lay doxale ci kilifa diine yi noonu la ñuy dox di ñëpp xam nañ ne am na ay am na am na du amul ay divergence mais am na choc d'ambition mhm. choc d'ambition tarixa yi am na ci mais kenn ku ne mosoo dégg ko tarixa mu ne sa moroom baaxul day wax nañoo ñoo comme bëggunoo bëgguloo ci prononcé moom est-ce que mën nañu xaar parce que l'opposition mi ngi mi ngi wër ci les leaders euh, politiques. Euh, di xool naka lay def ba ñu fexe taxawal cette plateforme bi nga xam ne taxawal nañu ko ba pare contre la troisième candidature est-ce que aujourd'hui Serigne Mboup est prêt à rejoindre cette plateforme xaw ma. non mais loolu waa xalal l' opposition woowuñ ma laajaguñ ma man. intéressé la woowoon laaj la waaw mais yow tamit xaaral ba non loolu Sénégal yëpp lañuy ñuy interroger mënuma Fat Abdou. gis nga ah. loolu. da ma fi wax wax ba suba mënoo fexe vraiment prononcer ki ah. mais ah, monsieur le maire xawlal min husni islamil ta tarku maa yaa nekk rafet jikko isaan hmm. dane li sa yoon nekkul nga bàyyi ko hmm. sama yoon nekkugu ci parce que mais mais mais mais nag mais nag monsieur le maire nañu xam position xam nga da nga sama position moom mënoo ñu wax pour pour jël mairie Kaolack après hmm. ñu xam position Serigne Mboup fan fan la féetee ak bàyyi li bàyyi li à quelques mois de l' élection présidentielle xamuñu ne xamuñu ndax opposition nga bokk xamuñu ne ndax da ànd jeek euh, Euh, le pouvoir bi fi nekk xamuñu euh, ndax candidat ngay doon mais loolu yëpp c'est des questions non boo ma laajee aujourd'hui un militant na ko xam boo ma laajee lu ma ci dugal ma wax la ko dinaa am tontu ci li ngay may am tontu rek ma wax lu ma ci dugal nga xam ne sama réew daf may jëla sacrifié Lat Joor mën naa la ko wax xëy na mën ak sañ Touba ñoom ñëpp bi ñuy jóg diine euh, moom lañ diine moo nekk ci seen bopp waaye li ëpp doole ci liñ doon xool mooy xamal nit ki boppam mm-hmm. waaw waaw xamal nit ki boppam soo gisee sëñ Touba wax na wax wax na loo xam ne mooy euh, sa yaram bu ñuul lu tax nga gàtt xel mm-hmm. bàyyi ngees répété ko loolu lépp wax nañ ci loo xam ne nii suñ xale yi buñ ko jàngoon danañ xam man tey fi ma waroon a nekkee mooy toog euh, am naa possibilité yi am relation di am samay marché di def nangam ak nangam mën naa ko mais loolu man la ak sama ngewoon bi may bëgg ne damaa bëgg maire yi ñëpp dañ doon wax ne dafa bëgg maire yi. pour ëllëg mu mën a am pression. loolu la wax ne woon sax ñemewu ko. pour ëllëg mu pression bi ma gañee maire yi man. dama xool analyse sama bopp ma ne bu fekkee ma bëgg def liggéey bi may liggéey bañ a bokk ci benn parti ndax tey dama amul carrière politique pour l'instant damay wax liy dëgg. d'accord carrière politique owuma ko. mën naa am mu yem fi mën naa am mu continuer parce que il faut que j'apprends il faut que ma jàngoon xoolal imaginer tey moo fi nekkoon way présidentielle laa bëgg j'oublie les Kaolack quoi. pas forcément. non bien sûr yow tamit aujourd'hui je consacre pour liggéey Kaolack parce que attendons élection présidentielle jotagul c'est sur que. c'est sûr que gérer moom moo à dire dessus. mais est-ce que ne vous inquiétez pas xoolal man ragalu ma leen wax c'est sûr que gérer un mot dessus. le jour que y a des élections présidentielles ñu bind sëriñ bu benn ko laajee dana la fii la fa fii laa far. est-ce que jàppoo sa njàmbur torop torop ci ku bëgg a def politique. waaw jàpp sa njàmbur de ko xas nit. ci ci ku. waaw ndax ñun njàmbur lañ dëkk. ci ci ko bëgg a def <laughs> politique je veux dire. lulu waa jàpp si euh, njàmbur la ci ci actualité yëpp. waaye du ma ci prononcé yëpp njàmbur sa yoon nekk man sa jàpp ma njàmbur sama yëf. Euh, sama euh, sama yëf loo ma ci laaj ma wax. njiitu njiitu réew en mandat en prochain mandat pour koo xamante ne toog na ba pare du yëfam moom yëfu ñëpp la yëfu tous les sénégalais la. non man buñ ma nee. boo ma laajoon benn affaire ma wax la ko boo ma ne woon limitation des mandats ndax dañ ko war a dindi Sénégal ma ne la. loolu mooy sama question. non limitation des mandats. d'accord c'était ça la question. non limitation des mandats je ne suis pas d'accord. pourquoi xam nga lu tax. Mhm. Afrique suñu démocratie dëgërul l'État ki yor pouvoir bi dafa am doole ci appareil d'État dafa am doole ci nit ñi Allemagne État amul doole ci nit ñi mën nañ bàyyi limitation des mandats. Mhm. mais man Sénégal. d' accord ma ci limitation d' accord ma ñu ne dañuy dindi limitation. donc nit daal mën na toog jëm jëm jëm jëmale fu ko neex. dégg loolu d' accord ma ñu ne dañ koy dindi. man ah, d' accord da nga bëgg ñu limité ko dama bëgg limitation. ah d' accord d' accord d' accord donc oui. deux mandats loolu moom loolu laa d' accord te loolu moo nekk ci condition. constitution bi donc pour Macky Sall il n' a pas. xaw ma xam nga ñoom nee nañ ñii nee nañ troisième la ñii ñoom nee nañ deuxième la mais loolu am na ñu koy àtte bàyyi ba xam nga man bala maa wax ñu koy àtte xam nga euh, décision de justice citoyen bu ne ma xaar xaar moo la may maagal décision de justice citoyen bu ne mën nga ko commentaire waaye mënoo ci dara sama papa dafa ma daan wax ne am dëgg neex na waaye ñu jox lu dëgg moo dàq mhm. décision de justice mën nañ commentaire mais man ki war a demander laajagul waaye yow nañ bàyyi ba mu laaj. Eh, eh, am amul leneen loo ci loo ci craindre le fait que peut-être yaa ngi yaa ngi nekk champion sur le plan économie yor ay entreprise souvent ñu gis ne ñuy dugg ci politique am divergence de trop ak état. lim leen di jural parfois ragaloo loolu ba parfois yenn position yi doo ko jël. mais bien sûr mu bien sûr bien par rapport à cette troisième candidature bien sûr ragal naa ko c'est-à-dire je fais très attention parce que c'est pas moi seul. pour préserver tes waaw même les Américains même les Français ils sont là. Euh, avec euh, l'État du Sénégal mais am na wax yoo xam ne mënuñ ko wax même buñ ko xalaatee mënuñ ko wax il faut nga xam ne loolu tamit tënk na ma waaye au moment venu man naa am lu duma tënk. parce que tënk na ma. Mm-hmm. parce que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp muy militaires yi muy ñëpp am na lu leen tënk tey mais dafa am boo xam ne bu ñu àggee ba réew mi ne kët ne jon danañ soxla du ma dana ma tënk waaye fi ne nii man li ma ci mën a wax mooy wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla ma répété waat ko président Macky sàll xam naa ko bu baax considération bu mag la ma jox. pa ñi ngay wax ñu ñëpp muy sonk mu ñoom ñëpp ñoom ñëpp xam naa leen. muy mm-hmm. baali gàkku muy ñoom ñëpp kenn ku ne mën naa la wax ne ne mas nañoo jaar fi xam nga quand tu dans les affaires di jaay oto. daan jaay saabu daan jaay alimentaire daan jaay di jaay lépp danga xam nit ñi. Mhm. da xam nit ñi man président Wade jaay naa ko oto Abdou Diouf jaay naa ko télévision jaay naa président Wade oto en étant opposant mhm. jaay naa président Macky Sall oto en étant opposant Ousmane Sonko nag ma ko oto waaye jaay naa ko eh, électronique. Mhm. kon man xam naa leen ñoom ñëpp Abdou mbay nekkoon na sama banque yi ah kon buñ ma classé. ma nekk ci foofu jotewul nag man bu ma bi ma amee élection di dem Kaolack mais Yewwi Askan Wi amoon na candidat hmm. ñoom ñëpp amoon na candidat man 34000 voix laa am Yewwi Askan Wi am 3000 ñoom ñu am 14000 programme bi ma teg Kaolack waaye gëm loo leen ne man damay ñëw liggéey mais programme boobu laa mën a doxal loolu laa leen waxoon loolu laay doxal bis bu ma amee ne damay benn journaliste ma laaj maa ngi woote ñëpp ne leen léegi sëriñ bu nee na lii peut-être une dernière question Khady alors sëriñ euh, gis nañu ne également euh, kilifa diine yi gis nañu ni nga ni nga mel ak ñoom gis nañu ne fan yéle ay génn yu bëri nemmee ko nañu ko ci ëtt këru diine yëpp di woowaat wuy politique yi acteur yi en tout cas ci ñu dellu siwaat seen xel par rapport ak tension bi euh, ni mu fi jubee te loolu itam euh, xëy na am na accalmie temps ces ces temps yi mais ñu ngi jëm ci à quelques mois de l' élection présidentielle alors naka nga jàngatee ces différentes sorties des des des religieux xam nga foofu moom ñëpp xam nañ ni fii ci dëkk bi hmm. ñi gën a exposé en tant que difficulté ci pays bi c' est les opérateurs économiques suñuy yàq seen alal ñoom la ñuy yàq su dëkk bi bloqué ñoom ñooy bloqué ndax bu fekkee danga nga am crédit bancaire leen intérêt bi du taxaw bu fekkee da nga am employé yuy liggéey liggéey munoo fin du nga ne leen da grève dafa am kon ñun ñoo war a gën a intéressé wu ci stabilité dëkk bi c'est vrai que nag dañoo naj ba tey jii foo waxee comme mi ni tey lu équilibre rek laa mën a wax foo waxee ñu ne lu tax nga wax lii foo ne mi ñu wax leen te man kat dama jàpp ne ay temps suñu suñu suñu suñ mag yi ki ma ci mën a fàttaliku rek moom laay fàttaliku mooy Mansour ma yàlla na ko yàlla yërëm dama ko daan gis taaw président Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade da ci daan dem di dox ci seen diggante di dem ak a ñëw. Mm. gisoon naa président Macky Sall tamit am na ay temps gis naa ku mu ci dox mais ñun opérateur économique tey dañu xaw a freiné. ku ci wax dara tey ñu wax loolu fii loolu nag lañ ñu war a dañ war a firi. Mm-hmm. ndax ñun ay stabilisateur lañ. Mm-hmm. léegi nag loolu tamit sëriñ si tamit. ñoom ñoo ñu yilif ci loolu. Mhm. ñoom tamit noonu lañ war a def. Mhm. dañ leen a war a bàyyi ku ñëw ñu recevoir la ku ñëw ñu tëjoo yow dé digtal la li lay digtal xam nga dem ci sëriñ bëgg a wax ak moom takk micro nit nit la rek day wax. day wax ci ni nga ko waxee la lay tontoo mhm. suñu abla dane nit ku ne ci ni nga ko waxee rek lay tontoo nit mën na laa wax dara ak kii léegi ñu jël ko ne nangam sëriñ bi nee na sëriñ nangam loolu la ñu war a bàyyi ndax sëriñ bi à part mu nekk sëriñ bi ñëpp ay dafa am dafa am njaboot dafa am bàyyi bàyyi kii bi ba yonent bi sax yàlla daf ko doon wax mm-hmm. ne ko danaa yonent yàlla danaan wax di dal di dal ñi naan ko euh, inna lazina yunaaduuka min waraa'il hujuraati aksaruhum laa yanqiluun xam nga danaan am bi nekk fa yaan ko eh leen ko mm-hmm. ne leen bàyyi leen li ngeen def yaakaar naa ñoo nga xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al ulamaa warisatul anbiya mooy man muy kilifa diine ku ne mm-hmm. la yàlla doon wax ci yonent bi ñu xoole ko ñu bàyyi leen ci seen man-manu bopp bu ñu wootee. ñu wuy ci waaye bu ñu wootewul ñu bàyyi leen daal. man daal loolu man daal loolu laay ñaan ndax. Euh, doomu daara la. nga ma sëriñu daara de waaye doomu daara la. merci beaucoup monsieur le maire. Ah, ah. c'était un plaisir am la si si plateau bi bàyyi la nga tàggatoo. waaw tàggatoo di leen souhaiter. Euh, bonne fête. merci <laughs> merci. et waroon ngeen maa invité nag de. ah invité nañ la de. invité invité nañ la ah, ñu waaw ah, mais léegi nag xam nga. ngeen baal ma du publicité waaye waa CCBM. Ah. ñoom tamit sama jigéen ñu taar yooyu. ah ñoom dañuy def bu baax kay. mais mais mën nga mais tamit. waa Kaolack tamit ñun le 19 dama leen a ñaan ne leen. Ah. bàyyi leen ma ma dem ak CCBM le 8. suba waaye la 19. Hmm. waa Kaolack chambre de commerce mairie ak waa Kaolack yëpp. weer wi yaatu na. Ah, daa weer wi yaatu na le 19 waa Kaolack aaye suba CCBM aaye. d'accord et j'espère yu jigéen yu yu yu mairie bi. ñu fekk su leen invité dana ñëw. ngeen gisaat ko fii ñu amaat jàmm liggéey dëkk ba parce que ni ma bëgg dëkk ba lañ ko war a bëggee. macha allah d'accord alors CCBM bi moom dañ ñu ci xajal tuuti même bu nekk vite fait sax ñu ngi koy moom euh, Serigne Mboup événement incha allah ci ci bu bu dee. waaw incha <laughs> allah incha allah d'accord <laughs> euh, à partir de 10 heures. am panel. panel bu baax à partir de 10 heures incha allah. Mm-hmm. Ah, waaw jox leen ma programme bi rek. dinañ la ko jox léegi incha allah mu ngoog en tout cas